tranché beaucoup de recours. parti démocratique sénégalais nag jamono ji daal di laxasaay doon génn ngir waajal ñibbi si Karim Wade ci réew mi te ñu jàpp ni du yàgg dara jamono joojee ñoom ñooñee nekk nag ci montage comité fédéral bu Kër Massar. mu ngi noonu Ndeye Fatou bu ñu gisee euh, comme yeneen parti yi am na ñoo xamante ne ne ci biir day am ay frustré loolu nag gis nañ ko ci biir parti démocratique sénégalais mais terewul ñu ngi leen wax ne ku ci mën nekk mën ngaa def li nga xamante ne moo di recours euh, concernant retour nag euh, ki leen di Karim Wade moom la ñuy waaj bu baax a baax. ah moom la ñuy waaj nañ ko xaar rek comme ñoom loolu la ñuy wax jox nañ ñu rendez ne Karim sera mm-hmm. espérons que il sera et que du ñu wala ñu dundaat li ñu amoon en pour cette fois-ci on est optimiste que Karim sera il va participer aux élections ci ni ko waa PDS di xaaree mais li ñu mën a ci parti démocratique sénégalais Fatima mooy c'est un parti boo xamante dafa structuré mais aussi très organisé boo xoolee yeneen parti des cartes mais aussi di def euh, li nga xamante ne moo di structuration boo xam ne kenn amul ko ci yeneen parti du APR mi nekk au pouvoir parti socialiste bi nga xamante ne sax yàgg na fi xam nañu lan mooy structuration ndax am nañ ay fédération am li nga xamante ne mooy ay secrétariat yu am ci région yeeg yëpp mais ñoom it soo xoolee seeni instance renouvellement yi gëj nga kaa dégg démocratie ci biir parti politique bu fekkoon nekk na loo xam ne day day tax ñu tas ko parce que loolu bokk na ci charte yi nga xam ne ngàllu na ci seeni ndodd suñuy sos parti maanaam ñu fexe ba li jëm ci démocratie ci gestion bi dañ leen koy sas mais aussi lu jëm ci financement du parti ak lépp loo xamante ne jëfandikoo nañ war nañ di indi annuellement li nga xamante ni moo di seeni résolution ci loolu mal malheureusement loolu nekkul lu suñuy parti yi di euh, respecté mais su fekkoon ne démocratie ci biir parti nekkoon na charte buy tax ñu tas parti kon doo dégg rek Pastef lañ fi tas di nga dégg parti yu bëri ci Sénégal yu classique yu fi yàgg ak yoo xamante ne ba ci gauche bi déggatoo seen benn restructuration ñi nga xamante ne ñoom lañ fa nommé ay général kenn xamul mandat quatre ans wala cinq ans wala dix ans parce que dangay gis des années et des années ñoom ñooy nekk ci bopp parti yi ñu nekk tamit ci fédération yi ci région yi pour ñu changer leen problème la démocratie yi ci biir parti daal booy dégg ay restructuration depuis trois années ci parti démocratique sénégalais rek nga koy déggee am na solo ñu daal di nag ci li sa soxool la njiitu réew mi Macky Sall mi nga xamante ne ñu ngi koy xaar ni ki ak jàmm fële ca Touba Mbacké muy nag visite boo xamante ne da koy def ci wetu xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké ndaje la boo xamante ne nag day dugg ci wàccaayu màggal Touba gu ni mel njiitu réew mi Macky Sall si noonee sax ni tey jii daal dinaa présider bu njëkk nag ginnaaw vacances gouvernementales bi lii di conseil des ministres bi bokkoon na ci nag lañ doon di waxtaane muy taw yi nga xamante ne jot na wàcc fii ci Ndakaaru ak li ko wër yëpp yëpp ak itam jéego yi nga xamante ne ne jot nañ ko ci def naka noonu itam jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi daal nañ koy jànkonteel ci wàllu woowee nag fële ci Rufisque am na nag lu bare bari indi ko ci ay gàllankoor jëmale ko rek ci wàllu koom gi foofee ca Tëngéej mu mel ni ki tey jii ci suba ngir ñu dem wuti yi nag si commerçant jafe-jafe la ginnaaw nag am na ñi nga xamante ne ñoo nekkoon foofee di askan wa yeewoo foofee ngir ñu dem wuti yi si centre ville bi itam dañ doon di rek xuus ci ndox mi loolee nag di Cheikh amee Tidiane Seck daal di xamal ñu teewlu ko ci. yu wàcc jamono yi fii ci Tëngéej jur jekkat yu ànd ak jafe-jafe ñeel way jëfandiku yi moo xam chauffeur woto yi wala sax ñiy dox ak seeni tànk fépp ndox yi taaju jaxasoo ak ban yi gàllankoor dem ba tikki bi ci route nationale bi ak ci tali yi sëq boulevard Maurice Guèye bi di situation bu amit lamu mu ci ñënd meex njaay mi ci commerçant yi jaaykat yi ambulant yi ak boromi taabal yi faw nga jéem a dox ci kaw yi xeer yu ñu tegale pour jéggi yenn ci tali yi digg feex nga nangoo xuus ci biir ndox yu ànd ak tilim sore lool lu ñu mën a wóolu lu ni mel nag lañu seetlu fépp saa su asamaan si ubbeekoo ak dayo bu taw bi mën a toll askanu Tëngéej dem ba miin yi la situation jàppe ne sax dafa bokk ci lu normal noo daal la mbir yi mën a demee ci ville bu mel ni Tëngéej xam ni dëkk la boo xam ni askanam ak ñiy yëngu ci wàllu koom-koom bi soppuñu gis asamaan su xiin ba ndox di wàcc rawatina ci jamono yi nga xam ne ñu ngi toll ci waxtaayuk jëm ci màggaluk Tuubaa ju mag ji Tidiane Seck mu mel ni tam euh, taw yi nga xamante ne nag jot naa wàcc am na lu mu indi euh, ci ay gàllankoor waaye itam ndox itam dafay taa bu baax a baax loolee nag euh, ci indi gàllankoor ci biir kër yi naka noonu ci yenn gox-goxaan yi nekkee fii ci réew mi loole nag tax na ci yorinu rek mbënd mi li lee di ONAS daal dinaa teg lu mu duppee ab ordinateur jaarale ko rek ci xarala yu yees yi ngir mën a indi ab surveillance ñeel infrastructure yi ñu teg jëm ci wàll wu nu mel loolee nag fexe na nag nag euh, moo ne nee nañ pour rek ñu daal di def ay système d'alerte yoo xamante ne précoce la jëmale ko ci wàllu wu ni mel ñu teewlu ci ki nga xamante ne nag moom moo di coordonnateur bu boobee projet ak Tidiane xeex mbënd du defar rek ay canal ak ay bassin li nga xam ne daf fi nekkoon démb ak barki démb dañ ko war a ñoŋal dañ ko war a taatagal dañ ko war a defar ba nga xamee ne euh, du mu gën a mucc ayib loolu moo taxoon tey jii bi ñu xamee ne Sénégal 2012 ak léegi li mu defar ci wàllu kanaan ci wàllu bassin alhamdulilah doyagul mais bari na mais bu ñu bàyyee loolu yàqu bu déwénee dañuy delluwaat di fa defarewaat ay kanaan loolu la ñuy bañ loolu moo tax si projet bii ñu ñu dénk ñu am xalaat ci njàppandalu AFD agence française de développement ak Fonds vert nga xam ne ñoom ñooñu ñu projet bi ñuy déroulé ñu leen di sant di leen gërëm ci turu nguur gi yëpp ñooñu ñoo ñu permettre tey jii ñu financé ONAS ba nga xam ne li ñu fi jot a def ñu mën ko ñoŋal ñu mën ko defar ba ëllëg ouvrage yi gën a am seen fonction bi ñuy xaar si ñoom. Mm, mu ngi noonu Fatou bu ñu ñëwaatee rek ci li nga xamante ne moom moo di eh, njeexital yi taw yi daal di def eh, gis nañ ko ci Touba mais également ci yeneen gox-goxaan yi fii ci eh, Ndakaaru lan mooy solution bi ngir ñu mën a wàccaayu màggal gi. solution bi de man gisuma ko ci élément bi jàll muy ONAS ak jéego yi ñuy def yëpp nag. Mm-hmm. parce que ñu ngi koy gis naam ñi ngi def ay jéego mais je ne pense man dafa am ay question yoo xam ne su ma gisee ñu def séminaire. di ko waxtaanee dama naan ñii amuñu xemmanteef pour régler la situation parce que yow yaa ngi ci dajaloo di wax ci ay ordinateur yoo xam ne moo la mën a wax ak mën la surveiller loo yi les sites yi nga xam ne dañuy am inondation ngeen dajaloo noonu def petit déjeuner def déjeuner mhm. pour génne ay recommandations alors que jamono ji ngeen koy waxee yaa a des familles yoo xamante ne elles su sous les eaux maanaam yéen bi ngeen di toog dajaloo di waxtaan nan lu ñuy def solution am na ñoo xamante ne biir Touba Mbacké mënuñu togg añ mënuñu togg reer parce que fa ñu dëkk mhm. ndox mi daf ko nangu mhm. ña am xel ñaar ak tiitaange ci naka la ñu accueillir gan yi nga xamante ne dañuy ñëw te war a dal ci yenn kër yoo xamante ne ndox mi daf koy yaw daf koy nangu beneen bi mooy gouverner c'est prévoir yow mënoo at mu jot at yi yëpp dafay tombé Magal Touba ci biir nawet gàmmu amaana bu ñëwee ci loolu lay nekk nga def ko war a jël ay mesures en amont jëloo ko nga koy jël en naval di woote naan da ngay def réunion aujourd'hui xam nga luy pexe bi ndox ma nekk Touba ñu def effort bu ñu mën ci am ngir dindi ko fa d'abord mhm. et aussi ñu préparer à l'avance ne màggal Touba déwén dafay nekk ci biir nawet mhm. ba nga xam ne quartier yu ci mel na Kër ñan fa nga xam ne mooy bassin ba nekk Daaru Rahman ci yoon ba entre autres quartiers yi nga xam ne war nañu biir Touba di accueillir mbooloo mu bari naka la ñuy def ba du ñu am jafe ne nii mu amee nii ci fan yii et aussi ñu def jéego surtout pour dindi ko ba ñi nga xam ne ñooy màggali sax seen xel mën a dal ñu màggal ci jàmm. nday faatu ci situation bi néeg démb rek gis nañu même Wakaam am na zone yoo xamante ne ne dafa daal di am ndox ba indi ay gàllankoor yu rëy ci askan yi nga xamante ne ñoom ñooy yeewoo foofu. te du Wakaam rek euh, Fatima Wakaam nëgë ni daaw amoon nañ même jafe-jafe ba maire bi sax génn di woote wallu ne moom lii daf ko ëpp doole foog nguur ñëw jàppale ko ci bu weesoo Wakaam xoolal ba Kaffrine Kaffrine 2 maa ngi gis benn élément benn habitant di wax ba jooy parce que nee na ñoom lan moo tax at bu jot su nawet ñëwee ñoom dañuy dem ba pour dem si wanag sax day métti si ñoom parce que seen wanag yi day fees dell mais loolu besoin humain la boo demee ba besoin humain pour nga def ko sax jafe-jafe la mais yaakaar naa ne yow nekk nga doomu aadama bu ñu teg fitna ak métit ñu ñu gis ministre boo xam ne il est maire de Kaffrine lan la leen wax mënuma ko régler léegi li ma mën mooy su fekkee yàlla gi tawul yàlla moom bu fekkee tawam day tàggoo wala buy dem buy ñëw day yëgle day fëgg bunt ñu xool nan la autorité étatique mën a taxawee devant ces ne leen lii de fii ñaari fan dinaa ko mën a lijjanti temporairement mais foog euh, taw bi bañ a ñëw kon taw bi dañuy toog sax di ñaan mu bañ a ñëw alors que loolooy nga ci suñuy béykat mm-hmm. pourquoi li taw bi di indi ci jafe-jafe ak métit duñ ko jëm jéem a saafara mais ñuy naan ay taw bi dañuy espérer mu bañ a ñëw boo weesoo foofu jéggi foofu fii à Dakar xoola Tëngéej élément bi tëngéej at bu nekk ñoom it ñu am problème mu inondation xoolal askan wi ni ñuy xuusee te li ma ci métti mooy après ndox mu taam yi après ay jàngoro mooy ñëw surtout ay maladie de la peau yi yëpp da koy indi mais aussi lu jëm ci paludisme chaque année ñu gis ne dafay faagaagal askan wi te ndox mu bëri moo koy indi duñ def pompage bu doy ONAS moom kenn waxatu ko ñoom bu fekkee waxu ordinateur la ñuy wax alors que terrain bi ndox kese la ñoom foofu lañ toll mais li muy indi mooy direction yenn kii yu vital yi nañ koy jox des en la matière mm-hmm. politiser kiy jiite lona nekkul koo xam ne expert la ci domaine boobu noonu moo tax li muy def politique nga ciy gën a gis que visite de terrain wala efficacité sur le terrain boo demee jéggi LONAS nga dem Senelec ay acteurs politiques lañ fay teg moo tax jafe-jafe yi muy laaj duñ ko mën a saafara direction nationale yi aussi foog ñu xoolaat ñi nga xamante ne ñoom lañ fay teg képp ku ñuy teg ci direction nationale